tey di su ubbite école ubbite école boo xam ne nii nuruwul ak yeneen yi ndax dañoo génn ci année Covid tey jii ñu taxaw na gën a waroon na fekk sax am na ñuy def seen évaluation yu njëkk mais tey la ñu ubbi donc après un mois ma jaaroon pour xool ci biir école yi nan la ubbite gi demee sànq dugg nañu nañ lycée Kounoune fekk nañ cours bi fees dell élèves yi ñëw nañu ànd ak seen i parents ah ñu xamal ma ne ñu bëgg bu ñu defee seen cérémonie d'ouverture ba pare daal di dugg ci classe. tey ñi ngi fii ci école élémentaire Kër Ndiaye Lo 1 biñ dugg see gis nga directeur nee na ma enseignant yi jàngalekat ñun ñëpp ñëw nañ donc 100 pour cent de présence dugg nañ ci classe yi fekk jàngalekat di commencé am xale yi yor seen kaye takk seen i masque donc li nga xam ne ni moo ñu dimbali ñuy aaru ci jàngoro ji mi ngi fi lépp ngi en place li nga xam ne aussi mooy tax nit ñi war a mën a jàng loolu tamit taxaw na donc pour di nga année bi dañoo am ñaar ñoo xam ne moo ñu tënk jiital ñu ben bi moy mbass mi donc loolu tek nañ dispositif sanitaire ñing koy continuer bi ci moy euh waxtu wi nu ma ko mënee waxee noonu parce que dañuy dogo tambali tàmbali te dañoo bëgg fi ak mois de juin lépp lu ñu def ñu def ko paré pare boole koog del si ci loo xam ne mi ngi bok ci programme bi passé donc loolu day xaw a jafe tuuti mais jangale bu buñ mobiliser wo jappalanté and ak seen directeur and ak mobilisation IEF ak sous préfet di surveiller lu war a taxaw au plan administratif mu taxawal ko je crois loolu ñu bëgg fii ak mois de juin incha allah day egg ci yenn résultats yu baax ñu ngi njort sax ñu am résultats yu gën ñu am ren. ndax euh, ñëw nañu fi tey ànd ak inspecteur d' académie bu Rufisque ak ay inspecteur IFM yi nga xam ne ni ñoom la bokkal liggéey bi euh, pour xool euh, tàmbali ubbi école bi fii ci sunu circonscription ñu gis ne wax dëgg yàlla tàmbali bi macha allah tàmbali nañu tàmbali bu baax. dem nañu léegi ci lycée bu kunun gis nañu ne tàmbal nañ ci tàmbali bu mucc ayib ñëpp ñëw nañu jàngalekat yi ñëw nañu élèves yi ñëw nañu dispositif yëpp teg nañu ñëw fii ci école élémentaire Kër Ndiaye Lo euh, la même chose gis nañu lépp lépp mat na li nga xam ne moom la ñu digee woon moom la ñu waxoon santoon euh, chef de service yeeg ñi ci aju ñëpp euh, ci réunion CLD bi nga xam ne defoon nañ ko pour waajal ubbite école bi kenn ku ci nekk la ñu la sasoon def nga ko kon nag danañu leen féliciter ci loolu euh, ci turu état bi euh, sant leen gëreum leen euh, félicité IA félicité IFI encourager leen pour que ñu gëna continuer ci li wax leen suñu engagement également à les accompagner pour que ñu am année scolaire bo xamné mo gën at yi nga xamné ñoo wess pour ñu am résultat yu gën inshallah